Thank you. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan sur la télévision Mbour TV ñu del siwaat ak yéen ci seen émission bu ñu en route vers un Mouroir di émission bi nga xamante dañ ko taamu di dañ ko jël jagleel ko ñi nga xam mooy Mouroir yi nga xamante ne dañoo marqué seen empreinte marqué li nga xamante mooy seen jamono ci wàllu histoire ci wàllu ci wàllu traditionnel di ay Mouroir yoo xamante ni tey mën naa ne que seen tur mi ngi fi mais peut-être am na ñoo xamante ne duñu xamee seen ay kanam moo tax ñu indi li nga xam mooy émission en route vers un Mouroir tey nag maa ngi leen nuyoo fi nga xamante ne mooy Joal Fadiouth bu ñu nee Joal Fadiouth dëkku président Léopold Sédar Senghor bu ñu nee Joal Fadiouth dëkku Yandé de Sène waaye tey ah, dañ fay ñëw euh, ñuy war a waxtaan li nga xam mooy parcours président Léopold Sédar Senghor fii la juddoo fii la yaroo 9 octobre 1900 1906 ci la judd mi ngi décédé itam le 20 décembre 2001 je rappelle euh, waa mooy mooy datu décès bi nga xamante ni mooy président Léopold Sédar Senghor alors tey jii euh, jëmu jooju lañ bëgg a defal ben fàttali manam tay ñëwaat ci archive am ñëwaat ci vie président Léopold Sédar Senghor maa ngi leen nuyoo fi nga xam moy pont wu Joal Fadiouth bu ca kanamee légui dañuy dem fa nga xamanténi rek moy kër président Léopold Sédar Senghor bu ko défé ah, ñu fekk fa nga xam moy conservateur mom tam mu expliquer ñu lan moy vie président président Léopold Sédar Senghor ak lan la Senghor doon def ba mu nekkee xale lépp rek boo bolé boolee daf lay jox émission en route vers un roi ci télévision Mbour TV avec DJ Elzo wa bu ko défé rek dama leen jox rendez-vous bu ko défé ñu dal dem fa nga xam moy kër président Léopold Sédar Senghor

ñu war a waxtaan ci carrière président Léopold Sédar Senghor donc tey ñoo si la donc tey ana lan nga ñuy def avant ñuy toog ba lan nga ñuy def xanaa ñu def pour kër gi voilà visité ba xam kër gi fu mu cosaanoo am nga xamante ni yéen ngi ànd ak ñun ci télévision Mbour TV fii ci kër président Léopold Sédar Senghor war li nga xamante ni mooy histoire président Léopold Sédar Senghor ay surprise yi ngeen ko am tey aja gaynde. mooy gaynde. mu juddoo ci biir awoon. bi mu màggee da doon catholique bi ko basé. basé voilà dafa doon catholique. waaye terewul ba mu am juróomi ak ñeent ku demul benn. moom ci moom waaw. donc

ah kii tam Banjul la nekkoon itam. mooy man ma koy baax ma nekkoon sax. moom nii. en service de la santé. ah oui d'accord moom it yaayam. amuñu ay ay ay ma nekkoon. voilà euh, dëkk la. kii moom gis naa la Mor Gueye. ma gis naa la moom moo nekk nii. voilà Joseph Joseph Dieng. voilà. lewo kon joroma doxano sereera lewo wotaxu bo Sénégal a kontaanu lewo wotaxu bo Sénégal a kontaan lewo korjoro lewo maatno seereer lewo korjoro jogo jiye sengoor lewo maat maanoy xole maan wa yaakan lewo korjoroy Sénégal a kontaan lewo korjoro maatno xaano seereer lewo wootaxu bo Sénégal a kontaanu lewo korjoro maatno xaano seereer lewo Léopold Senghor Léopold Joro ma doxono seere Léopold Joro yaay fa yokka jirulu Léopold Joro ma doxono seere Léopold Joro yaay fa yokka jirulu Léopold Joro ma doxono seere Léopold taxu bo Sénégal a kontaanu Léopold Joro yaa ne ko dugit mang yaa moom baat mano yaa ne ko dugit mang waaw. voilà voilà fii moo nekkoon wàññi. wàññi voilà d' accord. mais ndam gàttam wàññi la woon. ah d' accord dañ koo dañ koo. dañ koo dañ koo wàññi rek dañ koo wàññi ah mu taba taba taba bu màggetee. Mhm. fii la ñu mujjee. moo ko gënal. <laughs> ah oui boo amee la ko gënal néegu ñax ko gënal. néegu ñaax ko gënal. wax na ba léegi ku indi pajaas sa biir kër sax sa doom dóor la. macha allah. française mais jabar bu jiitu bi ne kumul la moom kumul. ah ah allé ko. française la mais ne kumul la. waaw préciser ça. parce que ñu toll nii ménage personne taxul kumul si kumul jabar bi kumul la. am ñaari doom. ñaari collègue voilà mooy collègue kii mooy premier jabar bi. ah moo nekk nii suuf. suñu natt waaw. ok donc benn doom la amoon collègue. donc lépp moo joxe gaañu. accident la def. ba mu tegee deux ans beneen doom bi gii. mais comme si ma dafa gaaw a doj. mu def ci bronze ci kaw. protéger ko. donc ko euh, jóg. ah moom lañ golo du ko yéeg Senghor dibu tan la wayoo golo du ko yéeg Senghor mbal jangi Senghor e xole man fa yaakaanu lewo kor joore yende pandal Senghooru ya mokorjoro jogo jiye sengoru lewo korjoro imbal ka jangi zengor lewo korjoro ma doga no sere lewo dayam no ma lewo pol zengor lewo korjoro ma doga no sere aja gannaaw ba ñu visit visite euh, ci kër gi euh, donc dañuy def nak toog waxtaan euh, ak ki xamante ni rek mooy Etienne mi nga xamante mooy conservateur kër papa yi Léopold Sédar Senghor tey defe naa ne que jógee gannaaw bu ñu defee visite ba pare dama lay bàyyi nga nuyu ak mbokk téléspectateur ñu ci Mbour TV. voilà donc mbokk Mbour TV. voilà mbokk seetaankat yi <laughs> mbokk téléspectateur yi leen di nuyu. Mhm. di leen dalal jàmm ci kër Papa Senghor. kër Papa Senghor. voilà ñu ko oyee Mbine xam nga ci kër. ah mbin mooy voilà donc fi moy keur jogoy. ok ci wolof. ah ci wolof. voilà mais <laughs> ci séeréer moy min jogoy. min jogoy. voilà d'accord tay defan tay naa tey moom foo ma foo ma foo ma taal ci émission bi alors tay donc tay buñ ñu ci parcours président Léopold Sédar Senghor donc ana fu mu sosoo président Senghor. voilà donc Senghor nga ngi mhm. euh le 9 octobre 1906 Joal. ok euh bi mu mhm. euh màgge Djilor. Djilor. à 20 23 km d' ici mu dellu si Joal à 6 ans pour dugg école. Mhm. parce que du doon làkk wolof. te làkk wolof. voilà donc dañ ko dënk ay labbe yu ko jàngal wolof ak français. ay labbe ay labbe. Ah, parce que labbe bu ñëk ba labbe dañ doon lak lak euh, local bi. Hmm. donc labbe fi nekk yëp dañ doon lak séeréer. ak wolof voilà comme dañ ko dënk ben labbe. fi ci église bi ben at la def. ok mu dem Gazobil. jóge Gazobil. Hmm. Euh, def fa CI ba troisième. te troisième. mu am euh, BFM moom donc. temps yi lañ brevet la ñuy wax. ah brevet jamono yooyu. voilà donc bi mu amee BFEM <laughs> la jógee Ngazobil. Mhm. dem Dakar dem benn lycée euh, c' était même pas un lycée benn séminaire la woon. benn seminaire séminaire. bu tuddoon Liberman moom lañ jëlee dakaar yóbbu ko Sébikotane. Sébikotane. voilà mhm. donc foofu ay laab rek lay formé. mais comme lañ ko dàq ci séminaire bi dafa defoon grève foofu. Nous mu dem école lycée Lamine à l'époque Vanvo. Vanvo ah, ok donc chez la bac Puis bac en 1928 la guerre bateau bi dem France En En 1928. voilà ah bateau la France. voilà bateau la France d'Avion. avion. Mhm. d'accord donc ba bateau demee France nag. 28 mhm. 35 euh, la nek agrégation agrégé en grammaire. Mhm. donc c'est la carrière a commencé. ah foofu quoi. voilà Comment France la le, la débuté carrière parce que Sénégal mënu fi début débuté carrière. parce que bac c'est la fi am. te comme beaucoup na professeur mon université. il a fallu que.

at mi waay. voilà boobu la juddu. d' accord at boobu la juddu at boobu la Senghor commencé jàngale. Hmm, mhm. d' accord kon defe naa ne que moom mën naa ne que parcours bi nga xamante ni mooy parcours njàngam France la commencé. Euh, non euh, Joal la commencé. ah Joal la commencé. voilà donc bi bi bi en grammaire. voilà en carrière carrière njàngale moo commencé France. ok d' accord mais euh, am. diggante Joal la Ngazobil ak Dakar. ak Dakar voilà ñetti ñetti ville yo la def comme euh, carrière euh, scolaire. Mhm. bi mu amé bac xam nga il faut mettre dans son contexte mom dafa bëggone nek prêtre l'abbé ak professeur. Ah. ñaari vocation la amone mom la amone mom la amone mais comme def dañ ko dàq. Mhm. ci séminaire bi mënatul nek l'abbé. dëgg la mais amone na vocation pour nek professeur à l'époque Dakar amuloon université. Mhm. donc euh, il a fallu que mu jóge Dakar. continuer ay njàngam pour mën a doon euh, professeur. pour mu nekk professeur. voilà d' accord kon defe naa ko moom ci parcours bi nga xamante ni moom ci la jaar donc d' une part euh, da xaw na xaw na souffert tuuti moom président Léopold Sédar Senghor. Euh, damay naan Senghor souffrirul. Ah. ci njàngam. Mhm. parce que yàlla da ko mayoon xel. boo xoolee ba mu duggee école ba muy génn fépp fu mu jaar mooy premier. premier ku mel noonu mënoo souffrir. waay <laughs> kii souffrir mu nekk CI. <laughs> nga redoubler. C'est deux garde doublés, quatrième gars war troisième gars mm-hmm. mais mom, il a été tout le temps meilleur dans sa classe mm-hmm. donc sourire, ci ñaagam Et aussi il était dans de bonnes conditions mm-hmm. parce qu'il a eu tellement une famille riche que bi Amé bac France de connaît Il duñ eu une bourse entière ah d'accord mérité woo au tax c'est pas parce que njàngam yéegu fa njàngam ëppoon na fa. Mm-hmm. mais de koo France de koo comme da ngaa juddoo ci famille boo xam ne dafa am alal. Mm-hmm. donc il lay jox 250 francs. 250 francs. waaw Moi, je suis mooy moitié ci bourse bi. <laughs>

nekk na fa agrégé en grammaire donc il a été professeur nekkoon na professeur. Mhm. il a occupé pas mal de chaires. Mhm. dans les universités. Mhm. nekkoon na député en France. député en France nekkoon na ministre en France. donc euh, yaakaar naa loolu yëpp euh, yaakaar président kese moo ko manqué mu doon France. mais poste bo xamné man mën na mën na France nekk na fa. nekk na ko ok. donc avant les indépendances. avant l'indépendance. mais il faut dire qu'il était aussi français. Mhm. parce que si muy a l'agrégation muy euh, accepter agrégation. Mhm. grammaire France Donc on ne sa pas fi mhm, donc on continuer. dañ ko limiter quoi dañ ko parce que comme je le judo. judo dans les quatre communes il ko limité. dañ lay limiter. Euh, bu judo dans les quatre communes il serait automatiquement français. mais comme dafa judo Joal il était sujet. donc ñu ne ko léegi boo amul nationalité doo continuer sa njàng. doo sa njàng boobu nag la Blaise Diagne nga xam ne Blaise Diagne mu nekkoon euh, am euh, ministre. Oh, Blaise jaañ waay. Euh, pas ministre député député à l'Assemblée nationale nekkoon xaritu Jogoy. Mm-hmm. Blaise Diagne moo wutal Senghor kayit en quelques jours. ba Senghor am nationalité mën a présenté wu si agrégation sinon dafa naroon ñim si Sénégal. d'accord voilà kon njàngam dafa naroon yàqu côté pour dafa naroon yàqu foofu la naroon yem. <laughs> foofu la naroon yem. ok mais comme ñoom Blaise Diagne nga fa woon nekkoon aussi seen correspondant mu jàppale ci ay kayit ba ñu naturaliser ko. macha donc comme il a été naturalisé aussi il avait droit à tous les postes

Neconde de maire. waaw ci bonne commune. Thiès. <laughs> ah oui. Mon premier maire de Thiès c'était en septembre 56. en 1956. ok Mon premier maire de Thiès. Hmm. donc trois ans a démissionné pour euh, céder sa place et être président du Sénégal. D'accord, mais Quand moment yi mu Thiès je euh, ci président. non a fait démissionné ministre en France. Ah, Il a démissionné. dafa nekk ministre en France un an démissionné. Hmm parce que il faut que je me dëkk mm. donc je démissionner démissionné deux mois plus tard dafa démissionné juillet 56. Mhm. après septembre 56 lañ ko premier maire ok septembre 56. septembre 56. d'accord mais comme n'est que maire. que mhm. président. voilà bi il a démissionné il a laissé sa place à Ousmane gom ah Ousmane gom voilà mon mon Moko. d'accord parcours parce que je rappelle donc parcours intéressant parce que le fait que tamit euh, président xam nekk koo xamante peut-être euh, ñu bari dañ ko dañoo roy ci mom mhm. ndax bu ñu dañuy am man dama bëgg melni président Léopold Sédar Senghor parce que fula bi mu amoon intellectuel bi mu nekkoon yoy yëpp nga xamanteni ne daf ko dëxañoon ci parcours am loolu dafa nekk lo xamanteni peut-être genre euh, repère lay doon quoi. Mhm. Mm. bon Senghor bo xolé du dundam yëpp repère la. ok euh, il était beaucoup plus porté. Mm. par la poésie que par la politique. Mm-hmm. lo tax Senghor da doon bañ nga koy ooyee président poète. Ah, da ko doon bañ da ko doon bañ bëggu ko woon. Ah, li mu bëggoon ñu koy wooyee mooy poète président. poète président. xam pas de ah, différence <laughs> le président. dafa nekk point de pare doog a président. Mhm. parce que Poésie Senghor a commencé vers les années 1928. 1928 voilà 28 35 il a commencé ay poésie. Mhm. voilà donc euh, poète dans la gënoon doon le président. mais bañ na ko ba danoon naan. Mhm. bu ma fi jógee. li ngeen di jàpp ci man nekkul sama politique. mais mais sama œuvre littéraire. œuvre voilà te côté boobu da ko fonkoon moom. te côté boobu yaakaar naa œuvre boobu moom c' euh, œuvre du parfaite. mais c'est une œuvre qui est quasi parfaite. voilà politique

Euh, référence de Sénégal référence à l'Afrique, continent mhm. référence dans le monde parce que demain dans Senghor jusqu'à la fin du monde mhm. mhm. il sera enseigné dans tous les pays dans tous les temps et jusqu'à la fin du monde ba àdduna il y a naa Senghor moom Touram, du fay

nekul ndimbalu suñu borom la wala ndimbalu suñu borom la. nekul lu mu xeexal boppam. yalla ko ko soloon. Mm-hmm. mais nag ak góorgóorlu. macha allah voilà. moom parce que mom il était euh, un garçon très intelligent donc ci ay waajuram la ko donnoo ba mom tamit tay bu nekkee président Sénégal donc gis nañ que vraiment ku nek amoon nañ yenn relation ak mom ci yenn ñi nga xam moy président suñu tin ni sous région bi donc nga xamanteni donc lool lool yombul quoi ci parcours président. waaw euh, d'habitude euh, xam nga Senghor. Mm. L'état tax suñu président yi di am problème. Mhm. Mhm. d'habitude en Afrique. Mhm. c'est des politiciens. ok Senghor dafa nekkul politicien. Senghor il est philosophe Senghor est humaniste Senghor est poète. donc c'est des gens qui réfléchissent. outre que suñu dirigeants parfois. xam nga suñu dirigeants yi euh, da ngay juddu nga ne lay mais Senghor judduwul ne lii laa bëgg c'est ça la différence. C'est Senghor judduwul mos a xalaat ne danaa nekk président Sénégal. Mhm. da koo dab daf doon jàng rek. voilà moom xam-xam la doon wut. mais <laughs> affaire bu fekk ko ci loo tax chaque fois da doon naan. Mhm. je suis arrivé en politique par accident. par accident. kenn mënoon nekk président Sénégal. Mhm. mais donc il est venu euh, à l'heure où il fallait. tout simplement. mais keneen mënoon na jël place am. effectivement mais nag waxtu bi mu ñëwee waxtu boobu aussi kenn nekk fu presque moom dal, mooy gënoon yee loolu poste bi. ñu may ko ko ñu may ko ko ayca <laughs> ba tey donc tey euh, gis nañu ko parcours président Senghor man da donc man fi may ñëw sax fi may ñëw mooy digganteem ak euh, Adjaratou Yandé Codou Sène donc relation bu personnelle mhm. relation boo xamante ni macha allah demoon na ba président Léopold wutaloon salaire ki nga xam mooy Yandé Codou mhm. avant tout seen relation fu mu commencé euh, seen relation nekkul diggante ñoom ñaar la commencé. digganteem ak sëru Yandé Codou la. sëru Yandé Codou. sëru Yandé moo doon wëy. ci benn xewu Senghor benn meeting mu ne ko léegi dinaa présenté sama rakk moom a gën a mën wëy. d'accord dégg a ci meeting ba sax la ko gise voilà ok donc euh, après ba mu ñu indee Yandé Codou présenté ko sengoor ba mu wëyee. Mhm. la Senghor miir dem ci moom xam nga Senghor. léegi nag daa xaacu rek mu daal di daal leer. <laughs> non xam nga moom il est il est il est c'est un homme de culture. Mhm, mhm. il donc euh, boo xamee valeur culture. culture. culture ci biir deret la nekk. dëgg la euh, li ñu la jàngal. ak li nga judduwaale mënta nekk benn. déedéet. Mhm. donc euh, culture da koo judduwaale. da koo judduwaale présent. voilà mhm. donc euh, li ñu la jàngal ay livre la rek loolu dañ la koy sol. Mhm. mais li nga judduwaale moom ay melentaan la ci biir yaram. wallaay. voilà fu melentaan yëngoo rek nga yëngoo. rek daal di yëngu. <laughs> donc xaw parcours am parcours am ma marqué donc su ma gisee Yandé Codou Sène ba keroog je rappelle keroog bi bi bi bi Senghor euh, àddina le 20 donc keroog bi muy dem ci cercueil di di dem di ko gis mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jooy mi ngi way tellement nga gis ni que émotion feeñ na foofu parce que digganteem ak président Léopold Sédar Senghor. Mhm. daanaka loolu def naa kenn dootu ko werante ci Sénégal loolu dafa nekk lu am solo. waaw xam nga séeréer aussi. Mhm. séeréer. Euh, xam nga parfois critiquer nañ Senghor ci affaire bu boo xam ne les gens n'ont pas compris. Mm-hmm. L'émotion est nègre. L'émotion est vraiment nègre. xam nga rare. day joy mm-hmm. ci baneex. Mm-hmm. day joy ci naxar. ci naxar dëgg la. séeréer day ree ci baneex. day ree ci naxar xam nga bu ñu la métier. lu métti. boo reetaanee da ngay étouffer say naxar. dëgg la bu ñu le defee euh, lu lu lu day. fanq ay naxar. dëgg moo gën histoire. Mhm. donc émotion boobu moo nekkoon ci Yandé-Codou Yandé-Codou est purement purement culturel. Mhm. loolu dafa nekk ci deretam. xam nga Yandé-Codou bu duggoon ci école. jàng musique li mu mën li mu doon tey du ko doon. parce que moom dañ koy canaliser ne ko li ngay def li ngay def fii ngay yem fii ngay mhm. woyam. mais Yandé-Codou da doon da doon woy ak xolam. wallaahi. la doon woyee doon woyee ak xelam xol la doon woyee. yàlla bu naan ko Léopold Gagné nga morsom boobu. lu may def. <laughs> gaynde bugul moom <laughs> voilà gaynde bugul yàpp lay dunde lay de sax après du fay benn yoon xam ngeen gaynde gaynde bugul moom yàpp lay dunde gaynde gaynde gaynde bugul yàpp <laughs> voilà donc Yandé Codou daal vraiment aussi boo xoolee. mayel yàlla la am. baatam bi c'est unique. Mhm. on a beau nga jéem a copier baatu Yandé Codou bi mais amul fenn ci àdduna. amul amul amul. Mhm. gis ay séeréer di woy comme Yandé Codou mais mënuñ koo dab. aussi yàlla ko mayoon. parce que dafa amoon empreinte am empreinte personnelle. empreinte personnelle ci xol bi lay jógee. c'est culturel. Mhm. c'est culturel. ndeysaan man sax ma ci profité di ci rendre hommage Aïda Mbaye yaa ah, Aïda Mbaye doomu Yandékoor di seen bi nga xamante ni wax dëgg yàlla nee moom kenn du ni Yandékoor kenn du ko tuddee kenn du ni tamit. Mhm. nga xamante ni mooy sama xarit mooy commissaire doomam mi nga xamante ni moom tamit vraiment wax na ma ci lu am solo. ci digganteem yaayam ak président Léopold Sédar Senghor nee na ko président sax mayoon na ko kër fa nga xamante ni mooy mooy mooy foog naa. Mhm, Gandiaye waaw d'accord donc euh, Senghor euh, Senghor li ko taxoon a jóg nekkul alal. Mhm. li ko taxoon a jóg mooy niteef. niteef. Mhm. Senghor da doon tabax ay nit. Mhm. xam nga chaque fois da doon naan Houphouët Boigny man euh, gis naa ne yow. alal ngay tabax. mais man duma tabax alal ay nit lay tabax. ok des hommes. xam nga liy créer ay zoom mm-hmm. moo nekk nga jàngal leen. Mm-hmm. nga parce que nit ak mala sorante wuñu. wuñu lu ñu li seen différence mooy éducation bi. mais nit ki boo ko éduqué rek bu doon nit. Mm-hmm. mala aussi boo ko éduqué du doon du du euh, du dina doon mala mais mën na soppeeku tuuti. donc euh, boo xoolee Sénégal fu mu génn ci àdduna. dañ koy naaw ndax turu Senghor. ndax turu Senghor parce que Senghor ay nit la tabax. tabaxul alal ay nit la tabax. Mm-hmm. il a il a bâti des des mm-hmm. te nit ki boo ko boo ko tabaxee. Mm-hmm. même boo ko jàngalul nu ñuy wute. moom ci boppam dina mën a wutal boppam. dëgg la nit ki boo ko jàngalee ut alal. alal boobu na ko sànq. ko sànq dëgg la dina ko parce que bu yàggee du ko dootu ko mën a gérer. dootu ko mën a gérer c'est vrai mais jàngala nit ki ki mu doon ba pare. nga ubbi ci àdduna. macha allah ci alal. alal boobu bu ko téye dina xam ni mu ko war a téye. Hmm. voilà parce que moom defe naa ne que construire construire na ay ay nit ba tey ci li nga xam littérature construire na li nga xam ay nit ci wàllu politique defe naa am na ci ñu bari ñoo xamante ne tey bu ñu doon tey. Hmm. Hmm. voilà bon euh, référence la. waay Senghor c'est une référence pas nationale mais internationale. Euh, ay nit dañuy ñëw fii ay tubaab. ni mën naa ñun bu ñu amoon tey Senghor. peut-être suñu réew du mel ni mu mel. mais am na ñu sengoor euh, bon Sénégal la Sénégalais mel noonu dañ gaaw a fàtte. dañ gaaw a fàtte dañ a fàtte. Mm. Euh, c' est la mémoire humaine qui est comme ça. mais aussi ça c' est le Sénégalais typique qui est comme ça. Mm-hmm. dañ gaaw a fàtte parce que tey am na ay élèves yu ñëw fii. Mm-hmm. ay terminal de malaaj ma laaj leen parti nu mu tudd ñu naan ma APR. donc <laughs> xam nga ne loolu Sénégal kese ko sañ ci àdduna. parti bi Senghor sos nu mu tudd nga ne ma APR mbaa PDS y' a chose mhm. am na ñoo xam ne sax loolu dañ ko war a war a xam li gën gaaw mhm. li gën a jege mhm. am na ñoo xam ne nu mu tudd ñu ne ma APR <laughs> parce que sénégalais gaaw a fàtte dañuy gaaw a fàtte carrément voilà ñun daal lu ñu intéressé mooy tey ak suba mais démb moom mais aussi ku nit ku amul démb rek nekkuloo nekkuloo wallaay nekkuloo lu war a mën a loo war a mën a nit ñetti yëf la démb tey ak ëllëg ak ëllëg dëgg la te ëllëg nga ko war a sóoraale démb nag euh, dafa war a doon leçon pour ëllëg nga mën a dund dund bu normal. Mhm. voilà. loolu amna na solo donc tay ana lan ngay ñaax ñi nga xamanteni peut-être euh, ñoo ñoo ne ñoo ne ci yoon wi li kon ñu te ñoo ne ci littérature mi nga xamanteni président Léopold ci la nekkoon lan nga leen ñaax bon en tant que conservateur. bon pas que dans la littérature mais li ma ñaax sénégalais en tant que sénégalais. en tant que sénégalais voilà. euh mo nek ñu gëna nité nite. Mhm. ku nek nité nga ci sa manière. à ta mhm. manière mais nak nit niteef dafa bëri ay façon mhm. am na ñu nité parce que li ma li tax ma li lii kese laa bëgg fu ma am ko par toutes les manières. dëgg la gis nañ ma dund na ba dee. Mhm. alal amuko mhm. mais téréwul mu don doon Senghor. Senghor. Mhm. xam nga la richesse la plus importante dans cette vie c'est pas la richesse matérielle parce que kenn du yóbbaale dara ci sa bàmmeel. mais li nga wara li nga fi wara bay moy mooy euh, woy wu rafet. wallaahi wallaahi am ko moom. donc Senghor bàyyi na fi woy wu rafet. donc euh, loolu aussi amna amna am njëriñ ci histoire deuk amna na njëriñ ci histoire personnelle. dëgg la parce que lo am am alal. mais té bo démé bo fi joggé ni ci. Euh, sa alal dañ ko day tasaaroo. ça c'est sûr. mais mhm. ci di wax ci yow lu ñaaw je préfère ñakam alal. Mhm. bàyyi fi way wu rafet euh, dem que am alal bo xamantene vraiment daf may sank mhm. donc euh, sénégalais dañoo dañoo on fait on aime trop la course à à l'argent. à l'argent <laughs> jiital xaalis. mais nag aussi xaliss baxna parce que fu xaliss amul. jamm amu <laughs> mais il faut savoir surtout les jeunes. damay euh utal xam-xam. boo amee xam-xam mënoo ñàkk. mënoo ñàkk dëgg la mais bés boo njëkkee am xam xaalis. am mm. am doo am xam-xam. ci parce que yow dootoo tal xam-xam. Mm-hmm. sa am sa alal bi moom ngay sàmm. moom ngay sàmm. Mm-hmm. voilà donc li ëpp important ci nit mooy xam-xam. Mm-hmm. loolu am na parce que li nit ñi wute mooy xam-xam. boo ne bopp lañu yor. ay benn cellule lañ yor mhm. benn organe lañ yor mais li ñu wute mooy suñu jëfin jëfin te jëfin yëpp xam-xam moo koy waral ci am na solo macha allah li ñuy teel woon sax ci waxtu jeex na man bëgguma woon sax waxtaan bi jeex parce que dama bëggoon jàng histoire président Léopold tellement daf may intéressé ba nga xamante ni moo tax kut kut moo dama dama ñëw pour wan do téléspectateur ni ko euh, archive Senghor yaa ngi fi euh, livre yaa ngi fi archive yaa lan ngay tàggatoo. bon di gërëm waa Mbour TV. Mhm. Euh, ci seen teewaay fii ci kër gi. Mhm. Euh, yaakaar naa ne télé yu bëri aussi bu ñu doon def ni Sénégal kër gi dina am daraja dina am daraja. macha allah mhm. euh, ñu bari xamuñ fi. Mhm. c'est pas parce que boo ñu fee xam mais dañ leen ko xamloowul aussi dëgg dañ ko xamloowul dañ leen ko xamloowul. mais yaakaar naa ne donc seen tànk rafet na. macha allah di leen di gërëm. ci seen taxawaay ñoo ko bokk di leen di gërëm ci publicité bi parce que publicité la aussi pour man. <laughs> voilà kër gi ay nit a ngi dëkk fii Joal sa mosuñ fee dugg. <laughs> nit a ngi dëkk fii Mbour fi ngeen di diffuser xamuñ sa mbiñ jógee fi mu féete voilà donc yaakaar naa ne aussi publicité pour man la <laughs> publicité aussi pour sénégalais yi xam suñu suñu suñu suñu histoire. seen histoire seen histoire ak suñu histoire. Mm-hmm, mm-hmm. voilà ma gërëm leen sant leen. Mm-hmm. ci teewaay bi ngeen teew ci kër gi. macha allah en tout cas tamit ñun tam ñu ngi leen remercier tey ci occasion bi nga xam dëgg la xat na lool waaye tey da ngaa bàyyi lépp donc tey dugal ñu wan ñu archive yi donc vraiment toog waxtaan ak ñun tey et puis ñun tamit amañ lañ leen jukkal di ñaan incha allah man du ma fi gëj <laughs> wax naa ko téléspectateur du ma jàng si xam-xam. <laughs> en tout cas maa ngi leen di remercier bu baax. voilà di jaajëf itam équipe technique bi ma àndaloon ci message bi newoon ci caméra bi sama assistante Ami Ngom ak euh, ñoom Fatou Bintou ñoom ñëpp tey ñun ñoo ànd tey tourné li nga xam mooy seen émission en route vers un droit Etienne kontaan naa. di ñaan njër yàlla yàlla jàmm yàgg. amiin amiin amiin amiin ñu fekk ko fekk ko ay déglu ñu bëri li le meilleur reste à venir incha allah. d'accord voilà chers amis téléspectateurs li mu nekkoon seen émission en route vers un droit ñu doon tourné fii tey ci Joal Fadiouth kër président Léopold Sédar Senghor jox leen rendez-vous très prochainement ci beneen numéro en route vers un droit merci beaucoup jërë ngeen jëf life.